Sabab mungkin cebulen suka dikoyang-goyang Sebab lulen cebulen suka dikoyang Sebab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi afada ala بحور الأنوار وجعلهم معادن المعارف والأسرار وعلى آله وصحابته أجمعين مبكي انترنتي رواتينا يني أبونيتي شين شين بي دي ار تي في دكار ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq di ñëwaat ak yéen ci seen émission bi ñuy tuddee njëriñu alquran ngeen koy am mardi bu jot ci biir chaîne bi tey nag mbokk yi ñu ñëw ci li nga xam ni mooy secret turu yàlla bi ñu wax latif nga xam ni ñëw na ci juróom ñaari aaya ci biir alquran moom nag kenn mënu koo jeexal wante danañu ci rek tudd benn bu nga xam képp ku ko koy jëfandikoo su fekkee ni nit la koo xam ne dafa tëju nga ni loolu lijjanti rek du sotti ndax loolu am na nit ñu muy dal ñu ci bari dañuy woote di ko tawat di ko jàmbat di wax ni lu ma dugg rekk loolu dafay yàqu lu ma lijjanti itam dafay jafe lool mbokk yi képp koo xam ni nag loolu daf la dal te mooy loo dugg du sotti loo lijjanti it euh, du sotti waaw koo xam ni daal danga am ay jafe-jafe yu bari ci sa biir dund euh, boo liggéeyee latif bi nga xam ni moom lañuy wax yàlla dina la defal jàppandal ba lépp loo lijjanti dina sotti te itam dinga am jàmm di am xéewal te loo dugg it danga nga ca am dam incha allah ndax latif mbokk yi. Euh, turu yàlla bu nga xam ni mu ngi bokk ci quatre vingt yi nga xam ni ñëw na ci alquran wante moom nag dafa am xaasiya tur yàlla bu ñu waxee ni dafa am xaasiya mooy tur woo xam ni moom foo ko dóor rek mu dem waaw foo ko dóor mu dem su dee da def euh, dafan latif mën na ko su dee da ngay def jalbu it latif mën na ko dafan nag suñ ko waxee mooy euh, dàq lor mooy nit koo xam ne danga am loo ragal loolu ngay bañ mu euh, laal la walla mu yegsi ci yow nga bëgg éviter loolu loolu lañ tuddee dafan loolu nag latif mën na ko su dee it dangay def jalbu te xëcc yiw waaw dafa am loo bëgg di ñaan yàlla mu jox la ko moo xam ay këyit la wala liggéey la palaas boo xam ni danga koy yeetu bëgg yàlla jox la ko wala danga bëgg yàlla ubbil la say bunti wërsëg yooyu yëpp latiif dara mënu ko ci euh, tey nag ñu ngi leen indil euh, secret bi nga xam ni moom la ñuy wax muyassarul asir muyassarul asir nag li muy firi ci wolof mooy jàppandal lu jafe waaw jàppandal lu jafe li tax nag latif bi ñu tuddee ko mu yassarul asir mooy moom su ko nit ki dee ñaane yàlla mbir lu mu jafe-jafe-jafe euh, su ko laalee dina yomb ci moom wala lu may lijjanti mu të nga xam ni dafa am ay jafe-jafe ci loolu wala koo xam ne rek dundam ci boppam daal moo bari ay gàllankoor bari ay jafe-jafe su liggéeyee latif bi incha allahu dafay am jàppandal bu baax a baax moo tax ñu tuddee ko mu yassarul asir te li nga xam ne moo ci secret bi itam suñu paree dinañ ko wax dinañ ko gis latif bi nag faatixa lay àndal mbokk yi Euh, faatixatul kitaab bi nga xam ni dinañ ci ñëw incha allah ndax moom secret alquran yi yëpp génn ko moo ko ëmb euh, loolu nag asari yi xam nañ ci dara su ko defee latif bi moom faati xale àndal mën nañ ko liggéey nag ci benn jotaay mooy benn toogaay wante it mën nañ ko liggéey ci euh, juróom-ñeenti fan euh, ni muy doxee mook faatixa bi mooy dangay jàng faatixa benn yoon daa di jël sa kurus def yàlla tiif 129 ndax 129 mooy limu latif ci valeur numérique 129 lay jàpp moom latif moo tax 129 boobu boo ko multiplier waatee par 129 moo lay jox li ñu tuddee am xaw yu latif muy 16641 latif moom it di lu gaaw ci aajo di lu yéeme ci wàllu ñaan xam naa di ñàkk danañ ci ñëw bés euh, kooku it ba tey dinañ koy multiplier waat sat waaw pour am zafariyah latif wante latif daal moom euh, adadam moom lismu bi mooy cent vingt su ko defee boo defee benn fatiha dangay ngay jàng latif 129 nga ñaan sa soxla daal di defaat fatiha ñaari yoon jàngaat fatiha ñaari yoon jëlaat sa kurus jàngaat yaa latif 129 daal di defaat fatiha euh, ñetti yoon bi nga defaatee fatiha ñetti yoon nga defaat yaa latiif 129 defaat faatixa ñeenti yoon jàngaat faatixa ñeenti yoon jàngaat yaa latiif 129 jàngaat faatixa juróomi yoon soo paree defaat yaa latiif 129 jàngaat juróom benn yoon jàngaat yaa latiif jàngaat fatiha juróom benn yoon jàngaat yaa latif 129 jàngaat fatiha juróom ñaar defaat yaa latifu 129 defaat fatiha juróom euh, ñeenti yoon 9 su ko defee def fatiha euh, def latif 129 kon noonu ngay yokkee fatiha bi ba bi ngay yegg 9 soo defee benn tey ci yoon bi soo ñëwaatee ñaar ngay def soo ñëwaatee def ñett boo ñëwaatee def ñeent ci faatiha boo ñëwaatee def juróom ci faatiha beneen yoon nga def juróom benn ci faatiha defaat juróom ñaar ci faatiha defaat juróom ñett ci faatiha defaat juróom kon noonu la faatiha bi di duggante ak euh, latif bi loolu nag mbokk yi mën nañ ko def ci benn jotaay te mooy liggéey ko ci benn jotaay mën nañ ko it séddale ci limu juróom-ñeenti fan te mooy jour bu njëkk bi dangay def rekk benn fatiha def 129 latif daal di ñaan sa soxla ñaareelu fan bi boo ko tàmbalee jouru dimanche beneen jour bi lundi soo ñëwee jàngaat fatiha ñaari yoon jàngat yaa latiif 129 mardi nga ñëw jàngat faatixa ñetti yoon defaat yaa latiif 129 ñaan sa soxla mercredi soo ñëwee jàng faatixa ñeenti yoon def yaa latiif 129 ñaan sa soxla euh, soo ñëwaatee jeudi jàng faatixa juróomi yoon def yaa latiif ñaan sa soxla vendredi nga def fatiha juróom yoon jàng yàlla xiif 129 ñaan sa soxla samedi nga jàng fatiha juróom ñaari yoon jàng yàlla xiif 129 su ko defee ñaan sa soxla dimanche nga jàng fatiha juróom ñetti yoon jàng yàlla xiif 129 ñaan sa soxla euh, lundi nga def faatiha juróom-ñeenti yoon su ko defee muy mu mat nga jàng yàlla tiif 129 daa di ñaan sa soxla su ko defee su boobaa mën nga génne euh, lu mel ni paketu suukar nga saraxe ko wala nga defar nàkk lu mel ni nàkk dugub soo ko defaree nga def ko 129 dank moomin nga saraxe ko su ko defee loolu dina tax ñaan bi dana gaaw a nangu mbokk yi kon nga gis ni loolu latif boobu di duggante noonu ak fatixa bi soo calcule fatixa yi da ngay gis ni yaa ngi am 45 fatixa 45 fatixa ngay am quarante cinq nag mooy aadama waaw su ko defee kon doomu aadama génnul ci biir ndax aadam mooy abul basar ci moom la ñëpp génnee góor ak jigéen nag ndax suñu maam xawa euh, ci maam aadama la génnee moo tax kon yaa ngi am faatixatul kitaab euh, quarante cinq su dee da nga ko def ci benn jotaay bi yaa ngi ko am ci benn jotaay bi bu dee da nga ko def ci juróom-ñeenti fan yit bi neuf jours yi matee yaa ngi am quarante cinq fatiha kon euh, gis nga ko jàpp nga limu aadam doomu aadama yépp dugg nañ ci biir moo tax boo ko liggéey yàlla dalay nooyalal xolu mbindeef yi ba lépp loo sàkku ci ñoom dana yomb pour nga am ko bi nga calculer latif bi te mooy cent vingt neuf kon multiplier par neuf rek ngay def mu jox la lim bi yaa ngi am mille cent soixante et ah, mille cent soixante et un latif nga am ndax ni nga koy dugalanteeg faatixa yi noonu neuf la soo defee cent vingt neuf nag multiplier ko par neuf mu jox la cent soixante et kon loolu mooy secret bi Euh, li tax ñu tuddee ko it mu mooy moom lim boobu la jàpp ndax mu yassarul mooy jàppandal lu jafe woon euh, boo koy bind nag ci alquran wala euh, ñi nga ni waaw ñi nga xam ni dañuy bind arab soo ko doon bind mim ngay def mim nag 40 la lay jàpp ci wàllu numérique mim 40 la ak yaa mu ya 10 ak siin su wow 300 soo ko boolee muy 350 ak raa 200 su ko defee day nekk 550 ak alif ak laam ga ci kanam mu yasarul alif ak laam ga 31 lay doon. kon soo ko si doolee day nekk 581 ak ayin 70 soo ko ca publier dalay jox 651 nga defaat siin su wow 300 mais sur asi ngay amaat su ko defee da lay jox 951 nga defaat yaa 10 yaa bi xëcc siin si mu jox la 961 ak raa mujj ba deux su ko defee daf lay jox mille cent soixante et kon gis nga adat boobu ni mu jàppee baat boobu di mu yassarul asir soo jëloo nit allahu huwal ganiyul xamidu waaw allahu huwal ganiyul su ko defee moo lay jox lim boobu ba tey mille cent mooy yàlla kat huwa moom alganiyu mooy aji koomal ji moo tax ko am rekk moo la may alxamid mooy ki yeyoo cant boo ko àddu doon it moo lay jox lim boobu kon mbokk yi secret ngi noonu bu nga xam ni yàlla tiif képp koo xam ni say mbir dafa jafe loo laar rek mu dëgër wala yow kat danga am ay jafe-jafe yu metti ci sa wàllu moo xam même bu dee wéradi la wala ci sa wàllu liggéey la ci wàllu àdduna ak lum ci mën a doon su fekkee ni yaa ngi jëfandikoo secret bi yàlla dina la defal jàppandal su dee it looy lijjanti la moo xam loolu këyit la ay këyit la yoo xam ni danga koy lijjanti mu jafe euh, mënul sotti wala place boo xam ne yaa ngi koy wut mu jafe ci yow lool bépp jafe-jafe boo xam ne daal dafa laal dundu nit ki incha allahu su nit ki jëfandikoo secret latif bi di 1161 bu ànd ak 45 fatihatul kitab incha allah ay mbiram dina jàppandi lépp lum ca sàkku it loolu dina ko yomb même noonu it lay. Euh, doxee ci wàllu wéradik koo xam ne danga wéradi it wéradik yaram gu la jaaxal lool soo koy liggéey ñaan ci yàlla saafara yàlla dina la defal saafara ca loolu nga xam ni yaa ngi koy tawat noonu it lay dimbalee nit ki moom latiif ci purifie xolam sellal ko euh, ba mu mën a gën a bàyyi xel boroomam gën a mën a jaamu yàlla latif it dafay def loolu moo tax bu nit ki di jëfandikoo latif boobu euh, dana ko dimbale ci wàllu xolam sellal ko ba mu gën a mën a bàyyi xel boroomam gën a mën a jaamu euh, boroomam kon latif daal dafa nekk loo xam ni li ma wax rekk xaasiya la moom foo ko dóor rekk dafay daal dem waaw foo ko dóor mu dem loo ci ñaanee it euh, loolu dafay daal ñëw incha allah kon tey mbokk yi boobu noonu lañu ñëw ak yéen muy 1161 latif bu ànd ak 45 fatihatul kitab su la neexee mën nga ko liggéey ci benn jotaay benn toogaay su la neexee it nga doxal ko ci juróom-ñeenti fan su la neexee nga doxal ko ci juróom-ñeenti fan su soobee yàlla say mbir dina dox dinga am ubbeeku te itam loo dugg da nga ca am ndam incha allah ndax bari na ñuy tawat di wax ni seeni mbir dafa dëgër lu ñu laal du yomb lu ñu dugg mu yàqu euh, mbokk bi nag su fekkee ni taqoo nga istigfaar kon niñ ko waxee woon ak salaatu ala nabi xam naa dinañ ci ñëw ak euh, latif incha allahu say mbir lépp dana dox ci kàttanu yàlla kon nag euh, foofu la ñuy yem ak yéen kon tey loolu lañu indi woon ci seen émission bii di njëriñu alquran di leen jox rendez beneen mardi ci chaîne bi di RTV Dakar incha allah kon mi ngi noonu wasalaamaaleykum wa RTV Dakar yéen ñi aboneegul abone leen gaaw ba sàlli kulus notification bi ndax mooy tax ngeen di am lépp lu fiy bàyyi ko jaa ngeen jëf